lu ñu gëm la ñuy wax et kenn ku ci nekk ci ñoom aussi boo ko xoolee ci comportement am ci tooginam ak ni mu nangoo da xam ni ñi jàpp nañ ci lu dëgër et que des gens yu ñu mën a am confiance yu ñu mën a am yaakaar. Euh, c'est très rare euh, monsieur Kader nga fiable euh, am ñaari retour de parquet. Mm-hmm. wëlbatiku ñu libéré ko. au mm-hmm. Sénégal fii. Mm-hmm. c'est incroyable. waaw mais incroyable n'est pas sénégalais. incroyable aussi n'est pas Kader. donc j'ai toujours gardé confiance que. ça va bien se finir et alhamdulilah loolu moom moo am donc les retours de parquet c'était un peu difficile et ça a beaucoup pesé même sur moi sur euh, même les autres yi nga xam si ñoom lañu nekkal et aussi Cheikh Yérim parce que y a d'autres aussi kon que je ne peux pas me permettre de citer leur nom ici mais des autorités des gens yoo xam ne ne nii si mhm. euh, moo tax ma ni la vous serez très surpris ngeen xam lan moom moo xew je peux bien répondre tout de suite mais ce primaire je laisse ça à Maître El Hadj Diouf non parce que je sais que ni El Hadj est plus approprié pour wax ci loolu ainsi que les autres les autres avocats yi nga xam ne si ne ni demoon nañ ba mot six à sept te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñëw de manière volontaire jàpp ci parce que bi ñu yëgee ni man la ku ci nekk ñëw na. alors Alioune Tine gis nañ ko doyen mu doon sàkk sa libération. Mhm. alors loo je le remercie du fond du cœur. bien que euh, parfois da doon métti léeg sama appréciation sur certains points mais bi jóg jotee jóg na. Mhm. et que ça montre que c'est quelqu'un de grand c'est quelqu'un Euh, lan la yor comme ay responsabilité quelqu'un qui sait apprécier dëgg ak lu dul dégg et que euh, li nga xamante ni moom moo di euh, les mouvements yëpp dañ leen di remercier parce que ku ci nekk jox nañ la waa difficilement mais pare woon nañ quand pour dire vrai je pense que da nga may may occasion ma remercier une personne boo xam ne ni sans moom tout ça du possible wala doon naa ragal muy ma femme parce que elle a été très brave je pense que ni tey su ma gëstoo gis ko dinaa gën am fierté ci moom parce que su ma yemee ci suma jabar je pense que yóbbu naa suma famille yëpp mais ce qui est waaw yàlla na la yàlla fay donc yàlla na yàlla fay mboolem Sénégalais yi mais nag euh, toujours sant yàlla mais li wétoor mooy euh, ñi ci sama ginnaaw man maa ngi séntu ci waxtu yu ñu jëm incha allah ñu bàyyi leen te am naa ci yaakaar te ñoom it am nañ ci yaakaar te tey ku fekkoon président Bougane ci biir euh, ak Bougane bi ngay gis ci biti Cheikh Yirim ak Cheikh Yirim bi ma fekk ci biir. non loolu damay bàyyi ba affaire yi dal dinaa ko maye mais xam naa ci plateau lay doon ci ni nga xam ni noonu lañ bokkee léegi-léegi mais merci beaucoup merci jërë ngeen na la yàlla defal jàmm alors mu nekk ki nga xam ne euh, kon moom mooy Kader bu Sen bi nga xam ni euh, mu ngi noonu di dem di euh, retourner gannaaw bañ ko